Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Books to learn English with Mr. Ba. daleen ak jàmm beneen yoon ci seen YouTube bi di English Books ngir jàng anglais jaaree ko ci wolof ànd ci ak Mr. Ba ba léegi dañuy continuer ak yéen ci Go English bi ci chapter bi ci buntu juróom-ñeenteel bi lan la ñu amoon ci chapter boobu mooy fishing di wàllu napp gi and farming di wàllu mbay bi boo fàttalee ko leçon bu weesu ñoo amoon growing tomatoes bay tomate lesson bu ama am solo aussi muy lan crops in West Africa crops in West Africa mooy mbay mi wàllu mbay mi ci West Africa lan lañ fi jànge lañuy bay walla ña koy bay wala fañ koy bayee walla niñ koy bayee incha allah dina leer ci biir lesson bi ñu dem ci number one bi speaking muy the first one speaking mooy wax bi ñu dugg ci wax bi kon laaj bi ak tontu bi fa la jëm look at the map xoolal ci map bi ci kart bi ask and answer questions like this nga laaj ak tontu comme nii what do they grow in laaj bu njëkk bi mooy dangay ngay xool nag technique bi ñu ko defee benn lañuy jëfandikoo bu ubbil la bunt nga mën a def lu bari nga bàyyi ci xel bu baax what jàngoon nañu ko ci li wees woon mooy lan kon laaj yu ñuy barab ba ñuy bayee mbir ma ñuy bay lañuy laaj what do they grow in voilà am nañu trois points yooyu noonu lan nga jàpp ne moom lañ fay def la ñuy bay walla fañ koy bayee very good fañ koy bayee what fa la ñu dugal la ñuy bay what do they ña koy bay grow in fa koy bayee what fa la ñu def la ñuy bay do they mooy ña koy bay grow mooy jëmmi mbay mi in nga indi barab ba ñu koy bayee what do they grow in ñoom lan la ñuy bayee nga wax tur exemple lan la ñuy bayee Sénégal what do they grow in Sénégal waa Sénégal lan la ñuy bay wala lan la ñuy bayee Sénégal ñu xool tontu bi nga gën a comprendre am nga ñaari mbir yu war a ñëwaat ñaari baat they grow waa Sénégal ñoom dañuy bay bu la neexee nga jël day day bi nag tekkil waa Sénégal mooy mbooloo boo xam ne nekkuñ fi rek waaye exemple pour mu gën a jege sa compréhension nga ne they grow mooy dañuy bay nga indi la ñuy bay they grow exemple ñu indi tomate they grow tomate doo ko indi nag fa koy bayee ah they grow tomate in Sénégal gis nga laaj boobu what do they grow in ñoom lan la ñuy bayee nga indi turu réew bi wala barab bi nga soxla kër gi ngédd bi ruq bi koñ bi marché bi yaa xam jardin bi yaa xam la nga bëgg laaj ci ban barab la boo xamee tur bi rek foofu nga koy def what do they grow in United States exemple fan la lan la ñuy bayee United States what do they grow in French lan la ñuy bayee France what do they grow in China lan la ñuy bayee Chine kon xam nga amul limite mu ngi aju rek ci li nga bëgg wax what do they grow in the field gis nga lan la ñuy bayee ci tool bi wala what do they grow in the garden lan la ñuy bayee ci jardin bi bu la neexoon boo ko bëgg def ci marché bi nga ne what do they grow in the market amul limite barab rek lay laaj boo xam ne moom nga fay teg bu la neexee ci kër gi sax what do they grow in the house lan la ñuy bayee ci kër gi kon foofu amul limite tontu bi tim da sukkandiku ci lan mooy réel ok ndax ci baat bi mujj dafa war a bokk ak bi nekkoon ci question bi boo ko xamee bu ma ne la what do grow in Sénégal lan la ñuy bàyyee Sénégal te xamoo Sénégal jëmi Sénégal kon mënoo ma tontu waaye boo xamee Sénégal ci boo may tontu da ngay Sénégal gi they grow example tomato in Sénégal mais su ma ne la what do they grow in Sénégal amoo droit ne ma they grow tomato in the Gambie non kon laaj bi day ànd ak. turu barab bi niki noonu tontu bi bu ñu ko xamee day ànd ak turu barab bi loolu mooy li logique loolu benn la bi jiitu ci façon laajin yi or mooy walla nga ne where do they grow fii beneen baat la jëfandikoo where mooy fan ci ban barab where do they grow fan la ñuy bayee bi ci kaw wat fa la ñu defoon la ñuy bay waaye bi ci suuf weer fa la def fañ koy bayee loolu moo tax ci laaj bu mujj bi barab bi du ñëw comme ni nga ko gisee woon ci kaw ne where what do they grow in Sénégal fii nii da naan where du they grow nga indi la ñuy bay exemple where du they grow tomato fan la ñuy bayee tomate gis nga where do they grow tomato ci ban barab lañuy bayee tomate tontu bi ñëwaat day grow nga indi la laajoon bu fekkente ne kii tontu xam na ko day grow tamit dañuy bay tomaat in nga indi barab ba ñu koy bayee boo ko xamee ndax weer dañu laaj question boobu ci ban barab la bi ci kaw what do they grow in ki laaj xamul la ñuy bay waaye fañ koy bayee la xam moo tax muy indi turu barab ba bi si suuf ki lay laaj xam na la ñuy bay waaye xamul fañ koy bayee loolu moo tax mu jëfandikoo where do they grow aha fan la ñuy bayee moom kon xam na tur bi barab ba la xamul après tontu bi ñëw they grow indi tur bi li mu laaj they grow exemple tomato in Sénégal code yu ndaw la yu nekk ci biir moom itam nga bàyyi ko xel lii boo ko comprendre rek mën nga laaj ci anam bu la neexee la ñuy bay wala fañ koy bayee boo ko comprendre di nga mën a tontu ci anam bu bu la neexee ci buñ la laajee barab bi ñuy bayee mbir wala lan la ñuy bayee ci ban barab nga comprendre ko loolu mooy partie bi jiitu ci leçon bi boo ko comprendre nag dina la dimbale lool ci sa English speaking bi ak si noo mën a waxee lu jëm ci wàllu laaj surtout bu ñuy bay wala lañuy bay ak ci barab bañ koy bayee. ñi wàcc ci suuf dem ci membre bi membre bi du ñu fi taxaw dañuy continuer lan lañ ci jublu mooy gis nga photo yi nii ay meññeet la wala ay gàncax wala ay mbir yoo xam ne dañu koy bay ne la exemple Mali lii lañ fay bay Sénégal lii lañ fay bayee gis nga li mel ni gerte nii muy peanuts ak Guinée comme nga gis banaana bi Sierra Leone ak Liberia niki noonu Côte d'Ivoire muy Ivory Coast ak Ghana niki noonu Burkina Faso wala Nigeria Togo ak Benin bu nekk ñi def benn gàncax wala benn mbir boo xam ne dañu koy bay pour jéem la guider ngeneen la boo ko xamoon boo bëgg a laaj ci lii fan lañu koy bayee bu ñu la ko laajee nga xam réew ba bi gën a siiw exemple lañ la jox nii rek boo laaju lenn ci yii nii may na la buntu ba tur boo amaat boo xam ne war nga koo laaj te gisoo ko ci photo yi waaye di nga xam nan lañ koy laajee ok ñu dem ci number two bi muy the second one reading reading mooy ci liir bi texte bu ama am solo lañu am nag ndax dinañu dimbale ñu mën a xam nan la ñuy waxantoo suñu biir bu ñu bëgg a nett nit diw moo ngi bayee nàngam wala moo ngi bay lu ama am solo la read this text yi mooy liiral texte bi read ñu liir texte bi bu ñu ko liiree liir bu njëkk bi liiraat ko dog ko tekki incha allah my name is Daouda and I live in a small village in the north of Senegal I live with my mother and my brother my mother's name is Aissatou and my brother's name is Ali my father works in Dagana in the north of Senegal My mother grows onions. She works in the fields every day. She digs the seed beds and sows the seeds. Then she plants the seedlings in the fields and waters them. The plants grow and have flowers. When the onions are big, she digs them up. My brother and I help her Then we take the onions to the market and sell Everybody likes her onions. da nga ci anam bi ñu ko liree déglu bu baax ci anam bu ñu ko liire My name is Daouda ñu tekki ko man maa ngi tudd Daouda dégg nga and I live in small village in the north of Sénégal maa ngi dëkk ci village bu ndaw ci ci nooru senegal bi. pour wax la rek ne I live with my mother and my brother maa ngi dëkk ak sama yaay ak sama frère my mother's name is Aysatu sama yaay nu mu tudd mooy Aysatu turam moo di Aysatu and my brother's name is Ali te sama frère turam moo di Ali léegi mën naa la wax ne la my father works in Dagana sama baay de moom moo ngi liggéeyee Dagana Dagana pour boo bëgg a xam fu mu nekk in the north of senegal moo ngi nekkee ci nooru senegal bi my mother grows onions sama yaay dafay bay soble she works in the field every day moom daal saa su nekk bët bu set rekk ci tool yi lay liggéey waaw nan lay liggéeyee she digs the seed beds dafay gas mooy dafay waxi comme li ñu amoon ci lesson bu weesi growing tomatoes daf koy gas and sows the seeds ba pare ji pepp yi da koy waaxe ba pare ji pepp yi du ci yem de then teg ci bu defee loolu ba pare then mooy teg ci la ma doon wax pareegul damay nett li jeexagul then she plants the seedlings in the fields bu bu bu ko jiyee ba mu sax jëmbët boobu jëmbat mooy seedlings bi nga xam ne bu génnee ba commencé am xob loolu mooy seedlings moom lay jëmbat den si plant plant waxoon nañu ko ci ginnaaw ne plante wala plant moom ak water benn lañu si seeni jëf maanaam bu nekk am na lu muy signifier ñaari mbir water mooy ndox water something mooy arrosé dara plant mooy gàncax si boppam plant something mooy jëmbat ok then she plants da jàpp ne plants bii ni plural la muy tekki gàncax yu bari déedéet dafa nekkoon verbe boo pare she dugg ci kon dafa war a jële s comme bu ci xii duggoon loolu moo tax she bul jàppale ne bul ko jàppee ne I have many plants am na gàncax yu bari dégg si then teg ci she plants the seedlings mu jëmbët tooba yi lu ñuy wax tooba yi nga xam ne dafa juddu bees in the field and waters them gis nga fii tamit li ñëwaat ci tool bi ba pare mu arrosé leen pourtant waters xam nga ne ndox plural bi duñu wax waters water rek la ñuy wax ndax mënuñ ko compter comme rice muy ceeb ok waters kon she moo ci dugg moo tax water jël s muy waters kon fii verbe la nekkul noun di tur waters dem mooy mu arrosé leen bu leen tuttoo jëmbët yi euh, tooba yi ba pare da ci def ndox après bu defee loolu nag the plants grow and have flowers gàncax gi nag màgg nag gis nga fii plants ñëw na ànd ak s fii lan la fii tur la de nekkul verbe moo tax nga gis mu ànd ak the the plants grow and have flowers bu ko defee nag gàncax gi màgg nag am ay lan ay fleur comme waxoon nañu ko ay tanteur bu defee loolu ba pare nag toog ab diir when the onions are baked mooy bu demee ba soble ci rëy na are baked mooy rëy baked mooy rëy small mooy lu ndaw gis nga ci ba ñuy liir commencement bi small village lu ndaw village bu ndaw boo bëggoon a wax village bu rëy da nga naan a big village muy village village bu mag bu rëy du ci yem de gannaaw bu ñu rëyee mooy considéré comme ñor na ok she digs them up mooy daleen di buddi dig dig mooy gas digs up something mooy buddi mbir ok comme pick up te nag bu koy def du moom kenn rek moo koy def de my brother and I man ak sama frère help her dañu koy dimbale bul wax ne my brother and me de déedéet ndax lu tax mooy help dafay nekk verbe te bu boobaa kon mii du ko mën a jëf ndax mii complément la My brother and I, you and I, man ak yow. We can go together, mën nañu ànd dem. ok ñu continuer my brother and I sama frère ak man pourtant ci wolof danaan mag yow mag yow wolof danaan mag yow nañu dem mag yow dégg xam nañu lool mag yow xamante nañ mais anglais naan yow ak man pour jiital ko jiital ki nga xam ne moom lay waxan then taxi bu ñu ko dimbalee ba nga xam ne he she digs them up mooy she digs the onions up buddi na leen ba defar leen bu baax then man ak sama frère mooy then we take the onions to the market dañu yóbbu soble ci marché ba he and sell them ba pare nag jaay leen nag pour wax la rek moom soble bi muy jaay daa baax de loolu moo tax everybody ñëpp ñëpp ñëpp everybody likes her onions ñëpp bëgg soble bi nga xam ne lay jaay gis nga ci anam bi ñu ko tekkee nii mooy tax nga dégg lan lañ si jubloo maa ngi koy liiraat nga dégg reading the text mooy liir texte bi hey eh, my name is Daouda man maa ngi tudd Daouda and I I live in a small village in the north of Sénégal maa ngi dëkk ci village bu ndaw ci nooru senegal bi waaw I live with my mother and my brother maa ngi dëkk sama yaay ak sama frère di nga lan moo tax mu wax loolu kon nekkul ak papaam ndax papaam mu ngi liggéeyee feneen. waaw my mother's name is Aysatu sama yaay de moo ngi tudd Aysatu my brother's name is Ali sama frère moom Ali la tudd my father works in Dagana in the north of Sénégal sama baay moom moo ngi liggéey Dagana ci nooru senegal bi waaw my mother grows onions sama yaay day bay soble onions she works in the field every day moom daal ci tool yi lay liggéey saa su ne bët bu set rek nii lay liggéey nag she digs the seed beds day gas fi nga xam ne la war a def pepp bi jiwu bi and sows the seeds ba pare nag ji li nga xam ne mooy jiw bi waaw then she plants the seedlings in the fields you know bu pare nag mu ji mu tutu tooba yi ci tool bi and water dem ba pare arrosé leen nag he the plants grow and have flowers bu pare nag gàncax gi nag màgg am ay fleur bu demee ba tàntoor la si jublu hmm. when the onions are big bu demee ba xamante ni soble si rëy na nag ba ñor nag she digs them up mu gas leen nag mu buddi leen mu génne leen nag moom sax du ko def moom kenn kese de my brother and I help sama frère ak man man sama frère noonu la wolof di waxee ah ñoo koy dimbale then we take the onions to the market taxi bu boobaa nag ñu jël soble bi yóbbu ko marché nag and sell jaay leen nag he everybody likes her onions ñëpp bëgg soble bi nga xam ne lay jaay <laughs> yaakaar naa di nga comprendre ci anam bi ñu ko waxee yóbbu ko ci anam comme bu ko doon nettali ni mu koy waxee day tax ba doo fàtte te dalay may tim concentration bu baax ba doo fàtte moo yooyu loolu mooy li ñu am ci leçon bi nañu ko liiraat beneen yoon ci kaw bul fàtte de lecture bi dafa xaw a am dafay xaw a dafa am solo loolu moo tax ñu liiraat ko ñaari yoon au lieu de ñuy dem ci liir bu mujj bi ok look at your book xoolal ci sa livre bi ñu dem lesson number three muy the third lesson in chapter nine si buntu juróom-ñeenteel bi mooy crops in West Africa mbay mi ci Afrique sowu jant speaking mooy ci wax bi look at the map xoolal ci map bi and answer questions like this nga tontu laaj yi comme nii nag la wax. li si jublu mooy guider la rek waaw what do they grow in ñoom lan la ñuy bayee exemple Sénégal lan la ñuy bayee plus barab bi nga bëgg a wax tontu bi they grow wax la ñuy bay in wax barab ba ñu koy bayee or wala ñu ñëw si suuf where do they grow u ñum fan fan sax la ñuy bayee plus la ñuy bay they grow nga ne they grow dañuy bay plus la ñuy bay in nga indi ci fañ koy bayee <laughs> ok ñu wàcc si suuf number two mooy reading liir read di text yi eh liiral text bi boo ko liiree nag dina la dimbali bu baax My name is Daouda maa ngi tudd Daouda and I live in a small village in the north of Senegal maa ngi dëkk ci village bu ndaw ci nooru Senegal bi here I live with my mother and my brother maa ngi dëkk sama yaay ak sama frère my mother's name is Aysatu sama yaay moo ngi tudd Aysatu sax and my brother's name is Ali te sama frère tim Ali la tudd my father works in Dagana in the north of Senegal sama baay moom de Dagana lay liggéeyee ci nooru Senegal bi moo xalaat nag sama yaay nan lay bayee soble bi ah my mother grows onions sama yaay day bay soble she works in the fields every day moom daal ci tool yi lay liggéeyee saa su nekk hmm. she digs the seed beds and sows the seeds day gas day waxi day gas fi nga xam ne la pepp mi war a tege ba pare ji leen nag ji jiw wi then she plants the seedlings in the field and waters them ba pare nag mu tutu eh, tooba yi mooy jëmbët gi bu paree arrosé leen def ci ndox nag the plants grow and the and have wala flowers bu pare gàncax gi mànk nag am ay fleur mooy bu demee ba tàntoor la ci jublu when the onions are big bu demee ba xamante ni soble bi réy na nag kon mooy bu ñoree she digs them daleen di gas da di génne he my brother and I help her man ak sama frère ñoo koy dimbale nag ci loolu then we take the onions to the market and sell them bu teg ci ñu jël soble bi yóbbu marché après jaay ko everybody likes the her onions ñëpp bëgg soble bi muy jaay yaakaar naa di nga comprendre leçon bi ok fii la ñuy yem ci leçon bi ñetteel bi ci seen YouTube bi di English Books in Wolof waaye ci livre bi di Go for English ngeen ànd ci ak Mr Ba thank you bye bye